bëgg mu rees noonu comme ça mënul ne du dem donc ñi nga xam ne dañuy jàmbat c'est normal ñu jàmbat mais yee boo ñu xaat yeneen jàmbat yu nga xam ne moo ngi ñëw yeneen secteurs yu nga xam ne dañ doon xeex ci mbas mi te jotuñu li nga xam ne moom la moom lañ leen waroon jox te ñooñu tamit bu ñu jógee yee boo ñu xam ne euh, euh, pënd ba bës bu wër comme ni ma ko waxee rek dina euh, yuuxu dana jib fañ ko yaakaar yaakaarewul woon élage Mame Mbaye Ndiaye ñu daal di ñëw ci jéego yi nga xam ne douane def na ko teg loxo lu toll ci ñetti téeméeri kilos yi marchandis la boo xamante ni bii bu fi duggoon àdduna tukki ca Pont Noir la ñu ko tegee loxo bu ñu ko xaymaa toll na ci ñaari milliards ci francs CFA ñu fekk ca Kaolack Aline Kane. saisie bi lee mu ngi xewee ci diwaanu Kaolack. te mu ngi toll nag ci vingt cinq kilogrammes de cocaïne pure suñ ko xaymaa nag mu ngi tollu ci ñaari milliards si suñu koppar ci mardi bi nag vingt deux décembre deux mille vingt deux ci booru treize heures trente minutes la agent brigade bu pont Serigne Bassirou Mbacké bu kaw Kaolack daal di taxawal benn woto nga xamante ne daal dañ ko suspecté oto boobu nag marque Toyota la di Land Cruiser gannaaw nag bi ñu gisee loolu li ñu xool seetlu ne immatriculation bi ñaari immatriculation la benn bi bi malien la ba ca des nag mu nekk immatriculation bu Guinée Conakry gannaaw loolu nag la ñuy xool oto bi di ko xool gannaaw loolu nag lañuy taxawal oto bi nag di ko seet di ko seetantal ci loolu le chauffeur bi nag daal di tiit daw li ko indi nag mooy dañoo ko wax ne am na loo xamante ne daal jaaduwul ci benn poche bi nga xamante ne dafa mel ni dañoo modifié oto bi ngir daal làq fa ay yëf ñu ko waxee loolu nag la daal di tiit daal di taalaat oto bi dem daw ñu dàqanteeg moom ba Medina ba foofu nag la conducteur bi daal di taxaw brusquement bàyyi fa woto bi nag daal di daw ñi ko doon topp nag ñoom bi ñu xamee ne suñ ko toppee mën na jur l'accident ndaxte ci Kaolack ci Medina ba ci waxtu yooyu le woto yi dañuy bëri ñoom daal li ñu taamu woon mooy jël cocaïne bi nga xamante ne teg nañ ci loxo ci fàttali nag ñu ngi koy xayma ci vingt cinq kilogrammes teyit valeur bi ñu ngi koy estimé ci deux milliards de francs CFA. Birahim euh, daanañu wax yàmba daanañu wax euh, yeneen mais cocaïne yi moom ak quantité bu toll nii euh, jar na tiit de. waaw mais xam nga vingt cinq kilos la ñu wax mais jàppoon nañ fi trois cent kilos lépp ci drogue dure di cocaïne boobu mm-hmm. xam nga bu ñu xoolee configuration wu Sénégal. frontière yi maam fan lañ ko jàppee mbir yi ñu ne la euh, daanaka bay dem ci frontière u Kaolack euh, mu nekk benn ëpp au plan sous-régional nga xamee ni ñu bari dañuy jógee Gambie wala Guinée-Bissau wala beneen gox ci yi ñuy wër am point de suite boo xam ne dañ fee jaar Sénégal fi mu féete ci wàllu continent africain également ci bu ñu koy xool géographiquement am sécurité également am euh, li ñu woowee jàmm sur le plan politique coow li moo bëri rek waaye amul fi coup d'état amul leneen kiy jaay drogue wala ki bëgg jàllale drogue am day seet yoon bi nga xamee ni da koy ne bu jàllale foofu peut-être que même bu dee cinq pour cent dina mën a romb li si des même bu dee nañ koy téye ndax am nañu ñoom seen système bu jore boo xamee ni ça ne date pas d'aujourd'hui à Mbour benn avion hydravion wàcce na fa sànni ay keesu drogue parce que boobu xam na ni jàpp nañu ko bateau Euh, échoué na ci euh, waaxi mbuur boo xamee ne drogue moo ci nekkoon également parce que tam commencé woon nañ koy jàpp te doo mën a xam kan moom moom bata boobu wala kan moom moom boobu la avion tout simplement parce que fii ñu nekk li ñu wër am na ci ay dëkk yoo xamee ni ñii di trafiquants yi mënatuñ fa jaar wala mënatuñ fa prospérer ñu ne nañu làmb Sénégal mais boo xoolee avec les efforts qui sont fournis par la douane la gendarmerie ak tous les services concernés muy police ak euh, direction ay orchestres ak yooyu moo tax mën nañ jàpp ni lii nit ñi di wax naan Sénégal euh, plaque tournante de la drogue ñu foofu. àgguñu foofu te je pense que avec le le rôle des des forces de défense et de sécurité euh, mën nañu dem ba bañ a àgg foofu parce que boo xoolee li ñuy jàpp ci li ñuy def ci ay saisies ça que il y a un effort extra extraordinaire qui est fait par par ces services pour. sauvegarder ce pays ci wàllu woowu. am na effort foofu na mais ba léegi trafiquants yi moom mooy seen daa mooy seen gagne-pain de. Euh, Sénégal moo jël coupe moom ci lu jëm ci wàllum drogue yi nga xam ne dañ koy jël di ko jubal ci réewu Afrique de l'Ouest oui ONUDC nee na ci benn rapport. lu ko jëlee deux mille dix neuf ba deux mille vingt deux cinquante sept tonnes mu di juróom fukk ak juróom-ñaari tonnes cocaïne jàpp nañ ko te pourtant dëkk ya mu doon dem Cap Vert la Sénégal euh, Sénégal ak quatre tonnes ak lu teg Bénin Côte d'Ivoire Gambie ak Guinée-Bissau. Mm donc pour te dire tey. wàllum trafic de drogue bi ni mu jéggee dayoo ba pare Sénégal nekk ci nag plaque tournante bi loolu moo ñu war a indil ay jeexi jaaxa alaaj parce que bu ñu demee ba drogue bi di mën a dugg Sénégal yombee noonu comparé aux autres pays de l' Afrique de l'Ouest loolu problème la te ñun ñëpp xam nañ ne ñi ko fiy dugal mooy borom ñi nga xam ne borom barke la mooy ñi nga xam te ne nii tey jii nii bu ñu la ne woon ñii kat ñoom ñoo yor wàllum drogue bi da naan déedéet loolu benn la ñaareel ba. lu tax ñu war a taxaw pour xeex ko parce que la dorog di jur ci réew dafa jégg dayoo mmh, alal mmh, mmh, nit ki day tàggali kook sagoom faatu ci ci overdose nit ki day tàggali kook sagoom agressé nit ki faat ko nit ki day tàggali kook sagoom def njuum te yoo xamante ne nii tey jii nii mais la muy indi ci gasaxal daanaka daanakam réew kenn xamul nu mu toll donc loolu mënuñu ko di ko bàyyi muy dem beneen bi loolu lu muy jur moom mooy gën a indi lu jëm ci wàllum ay blanchiment xeet yooyu noonu alaaj mm-hmm. parce que ñoon nit ñi alalu drogue mënuñu ko justifier la muy indi moom mooy tey jii nii la nga dégg ñu ko doon wax ne ak si Dakar Mbuus Thiès ak yooyu bu mu leen bet boo leen gisee tey jii nii ay immeuble di di di judd comme pas possible parce que loolu après ci la jëm donc loolu yëpp tax na lu ñu war a xeex la lu ñu war a taxaw la encore une fois ñi ngi jaajëfal suñu les soldats de l'économie ci effort yi nga xam ne ñu ngi koy def ñu gën leen a war a jox matukaay ak gëdd bu war surtout pour ñu mën a taxaw xeex li nga xam ne daanaka la muy indi jafe-jafe réew dafa bari te nag Sénégal tey bu ñu demee ba naan plaque tournante drogue la tey alaaji war na tax ñun ñëpp ñu am ci jeexi jaaxa war ci taxaw pour indi ci solution ay dëkkuwaay yu bëri yoo xam ne ci denn géej sud de denn géej dañu leen a daaneel ci taxawaay ak contrôle waa bu ñu xayma toll na ci juróomi hectare am na ñu tabaxoon nañu ba muy waaj noppi def ci ay millions i millions am na ñoo xam ni itam seen bâtiment sore woon na lool loolaay li tax ginnaaw daaneel ga ñooñu daaneel seen batuwaay seen i bâtiment am nañu lool lu leen metti leeraluñu nag lan moo nekk ci ginnaaw boobu la démolition nañ fa fekk Cheikh Ahmed Tidiane Seck Le cri d'alerte lancé par les populations de Denigate Nord et Sud n'a pas eu l'effet escompté. Les bulldozers de l'armée ont finalement détruit maisons et constructions en chantier avant de les raser. La DESCOS est venue, démolition des maisons qui ont été, été légalement achetées par. yoxuk wàllu ba askan yu Dénigate Sud ak Nord yëkkati woon mujjute sax am effet ba ñu te doon séentu bulldozer yu l'armée yi daat nañ toj ay kër daaneel ay tabax ba noppi daat leen raser. zone boo xam ne def nañ ko loti ba pare. am am ndox am courant liñ fi yàq tey kenn mënu ko xayma ah ay nit daan seen doole jël seen pàkk tabax ci dëkk fa ak seeni njaboot nga xëy suba teel daane lépp dindi lépp mel ni comme nekkuñu un pays de droit ay boroomi kër ak ñi nga xam ne dañu cee loru jooy rek moo leen see woon ñenn ci ñoom dañu investir ay millions ngir daal yëkkati seen i bâtiment am naa bâtiment plus de cent millions ñu daaneel ko nii saru avis du dara laa tabaxee lépp sama tey ñoo ngi daaneel bulle serse ñu ñu fexe daaneel bâtiment ça veut dire que investi sur cela ñu ngi lancé appel le président de la république son excellence monsieur Macky Sall moom la waxal say njaboot la ñuy ñëw toroxal yow nag la ñuy waxal yow yaa jiite réew mi ñun de depuis 2012 ñu ngi lay voté loolu la ñuy rëccu tey. boobee sax nekk ci wetu lak Rose mu nga bokk ci commune bu Bambilor. alors Birahim normalement normalement euh, wax nañu xam ñoom kan moo leen jox terrain bi parce que itam desos ndiku nañu ci yoon pour daaneel foofu. kayit la ñuy sukkandiku lu leer la sukkandiku waa Descos. Euh, Bambilor la ñu wax le maire nañu wax. ban euh, waxtaan la ñu wax ci wàllu conseil municipal attribuer terrain bi wala site bi kan lañ ko attribuer lan moo waral kañ ko attribuer ñu jël keneen attribuer que le même site yokkaat ci keneen gis nga tey euh, Mansour am na ñoo xëy ni pour man dañoo ñoom ñoo mérité prison xam nga leen hmm. promoteur bi nga xamee moom biir na ko ne terrain bi terrain Mansour la hmm. ci kayit moo ko moom yàlla uh-huh. ci fi ñuy wooyee ci yoon mi war a jaar yëpp jaar na ko moom moo ko moom mais lijjanti na ba am beneen kayit ñëw jël même terrain bi jaay ko foofa Fofana Mambay ñëw tamit ñu jaay ko même terrain bi promoteur boobu def loolu kooku il mérite la prison parce que ki dem ba tabax këram mais tabax yombul ah. uh-huh. nga am loo tëjee sa sa sa terrain am xaalis boo mënee taxawal mur tàmbali di def di am yaakaar na ni lii la nga yoroon yëpp loo jot Euh, denc nga dugal ko ci biir boobu la tabax nga ñëw des ko dindi ko des ko ci ay kayit lay la ñuy sukkandiku. Mhm. mais toj bi ñu toj ñaata nit la dem ba traumatisme dañ koy am ndax la ñu dugaloon yëpp li naan on a investi toute une vie l'argent de toute une vie. pour mhm. tàmbali tabax ñu jël loolu yëpp rasek ba pare du mujj fenn duñ la indemniser ni rien mais sur ce plan-là je pense qu'il faut nécessairement que l'État du Sénégal les gouvernants réfléchissent ci benn mécanisme boo xamee ni que ñu toj këram. dina am luñ ko mën a dàmpee ndax peut-être moom xamul dañ ko nax. jaay ko wala ñu tegale ko loxo ki ko nax jaay ko. waa dañ ko nax donc moom il est euh, kooku victime la. nekkul coupable mais victime boobu nag ngay def ba mën ko indemniser au moins mu mën a euh, feral ay rangoñam loolu tamit je pense que je sais pas si c'est déjà fait ndax am na benn législation ci wàllu woowu waaw war nañ ko sóoraale bu baax a mais bi euh, foofa na promoteurs yi ay coupable lañ parce que ñoom ñoo jaay. Mm-hmm. mais ñoom itam avant ñuy jaay dañu am këyit leer donc collectivité territoriale bi la impôt domaine ñoom ñëpp ku nekk war nga am rôle. normalement oui boo balaa ngay ñëw ci promoteur bi bien entendu am na ñu koy jàppandalal ak yombalal ku am kayit ñooñu ñan la collectivité territorial mu di gox bi nga xam ne fa la nekk maire bi moo ko ciy dimbal moo ko koy jox bu weesoo loolu kan la administration territoriale mu di sous préfet wala préfet bi nga xam ne moom moo nekk ca gox ba mais bu yéegee ca kaw impôt et domaine ñoom ñoo fay nekk receveur des domaines bi fa nekk chef cadastre bu fa nekk ainsi de suite mu doog a yéeg dem euh, fi nga xam ne nii moom mooy CCOD ainsi de suite ba ñu génneel lu ko jox la ko pour nga mën fa am cinq sanction donc cela veut dire que bu bu fekkee ne ne tey lii nii ay promoteur ñu ngi am sañ-sañ di ñëw ci ay suufu jàmbur ji leen fa jaay doole c'est parce que dafa am ay complicité yi ci am te loolu tey jii ne lool nañu war a xeex mu di ne c'est pas parce que receveur de domaines nga c'est pas parce que directeur de domaines nga que lu la neex war nga ko def wala am nga ay nit ci biir administration bi tey jii nii bi nga xam ne fiscal wala administration bi nga xam ne mooy impôt et domaine nga dem fa parce que am nga sa sa am nga foo xam te ni toll nga fa nga mën a def ay maguy tey ba mën fa mën a jën donc loolu nekk na loo xam te ne nii lu kenn warut a nangu réew bu ñu demee ba ki nga xam te ne kii kat ay dërëm ak ñaar dërëmam la dajale moo xam da doon jaay jën moo xam day jaay tàngal bongbong ak neen seen dajale ko pour tey jii nii am ci suuf jënd ko ba pare nga ñëw foofu noonu ne ko fii dem moomoo ko wala keneen ñëw indi ay kayit ne moomoo ko moom aussi loolu problème la élage loolu ar nag la crime la sax ci nit ki nga xam te ne kii kat dafa dajale alalam ci jam jamono joo xam ne metti na lool mu takk biiram lekkut naanu lool yëpp mu jàpp ne ne war na mën a am kër nga ñëw tege ko lool. mais mais nga baal. Mhm. est-ce que mas nañ fi gis benn borom barke bu nga xam ne tabax nañu daaneel këram man de fàttaliku ma ko wala bu fekkee am na bokk yëgu ma ko ñi ñuy daaneel seen i kër yëpp jaaykatu caaf bi la góorgóorlu bi la euh, euh, euh, ki nga xam ne moom mooy baara ñunde bi ku si nekk taaba taaba jigéen yi nga xam ne seen borom kër génn nañu àdduna ñu dajal lu ñu am commencé tabax ñu ñëw daaneel seen i kër xam nga loolu tam dafa xaw a dafa xaw a doy waa du benn borom barke bu nga xam ne nañ daaneel këram te du dama ñoom ñëpp kon peut-être euh, jënd nañ ko normal wala peut-être dañ ko waxaale suuf négocier ko lu mu ci manti doon danga dul xam à un moment donné fan nga mën a jaar ba mucc parce que da nga yor sa këyit nga yaakaar ne fi nga jaar foofu la nga gis keneen ku ñëw indi këyitam ne la kayit bi nga yor baaxul. mais mais ki nekk victime ci mujjantal bi est-ce que wuta am sañ sa wuñu ko utul utal benn fenêtre bu mën a jaar pour topp ki mu fal xaalisam promoteur bi. lu loolu pour a. jox xaalisam ñàkk am benn initiative bu nga xam ne peut-être am amoon na xam lu taxoon xam ma mi ngi continuer ba léegi xaw ma euh, président Macky Sall waxoon ne ku yor këyit bu nga xam ne dafa ndaw moo xam euh, euh, délibération la mais nañ la jàppale mu nekk titre foncier nañ la jàppale ba mu nekk titre foncier am na ñu nga xam ne euh, euh, commencé commencé woon nañ ko man am na benn élément ma fi jàllaloon ñoo ñu jox leen seen i kayit mais est-ce que loolu pour Sénégal gi yëpp la wala dafa am ñu ñu ko jagleel. bu fekkee loolu moom am na. yombul ba ko continuer ñii boobaa daaneel kër yi ngay gis dina wàññeeku. parce que baadoola bi nga xam ne kërti kërti na ba am euh, li nga xam ne moom mooy délibération ñu teg yoon. dina dem ba jot titre foncier boobaa daaneel kër yi dina wàññeeku. Hmm. jaajëf maam ñu wax ci o mi woolu woon démb taskatu xibaar yeggi leen tolluwaayu liggéeyam boole ci itam présenté leen benn étude bu mu wax ni 37 pour cent ci consommateurs yi daanaka ñoo amul satisfaction ci li nga xam ni mooy entreprise bu Sen'Eau ni ki itam te ñooñu fa ñu sukkandiku mooy la ñu dénoncé ni ndox mi dafa xaw a cher lool seen ndaje moomu Abdoul Aziz Sow moo fa demoon. juróom-ñeenti milliards muy ay jéego yu waa CNO di def ci investissement yi ngir ku nekk joote ci ndox mi waaye teewul ba tey am na yenn ci ay gox yu dund ñàkkum ndox mi bokk na ci comico foofu dañ fa def ay projet yoo xamante ni pour renforcer réseau bi en attendant ñuy am usine de dessalement d'eau de mer ba nga xamante ne ni li ñu waxtu yi ñuy am ci ndox dañ koy gën a améliorer. téeméer boo jël ci client yi juróom benn fukk ak juróom ñu ngi ñaaw lu njëgu facture yu cher yi buñ sukkandikoo ci ab enquête bu agence BDA amal waaye PCA bi di dalal xel yi buñ sukkandikoo ci Pape Gorgui Ndong mu ne 2015 ba tey njëgu ndox mi yokkuwul muy dikkaat ci nu ñuy xayma facture yi. tranche sociale mu nekk de 0 à 20 mètres cubes lay facturer mooy 202 francs. 21 mètres cubes à 40 mètres loolu mooy deuxième tranche bi. boobu ñoo ngi la koy facturer six cent quatre francs foo jotee quarante mètres cubes rek ñoo ngi lay facturer huit cent soixante-dix-huit francs buñ sukkandikoo ba tey ci boobule enquête mu ne téeméer boo jël juróom benn fukk ak ñett ya gis nañ seen bopp bu baax ci liggéeyu seen o mu mel ni kon téeméer boo jël fanweer ak juróom ñaar ya doyloo wu ñu yooyu le service tax kon ba ñi lee war a def seen kéem kàttan ba ñu satisfaire leen ndax ci lañ bokk. jéem a ko 100 pour bi. gërëm ñu sant ñu ci liggéey bi ñu bëgg def bi ñuy def te bi ñëw. bokk na ci leen jafe aju. Mamadou Fofana benn mètre cube d'eau ba vingt mètres cube d'eau dafa am njëgu boppam vingt mètres ba quarante dafa am njëgu boppam quarante ba jëm cent dafa am njëgu boppam xanaa ndox day gën a neex bu paasee vingt vingt mètres cube vraiment xam nga xam nga alaaj tamit. sa ñii tamit bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xam nga yàpp nit ñi mënut a wees nga ñëw taxaw fii nga ne 37 pour cent clients yi ñoom ñoo kontaanul si seen eau oh, c'est faux. loolu amul fii ñun ñëpp xam nañ ñun ku ci nekk ak seen eau seen eau normalement bu nekkoon beneen dëkk la dama ne la dagg nañ contrat am yàgg na. yàgg parce que la ñuy def teguñu ko fenn. seen o lañ leen jox ci li nga xam ne moom la ñu war def. vis-à-vis ak les defu ñu ci respecté wuñ ci tous fii mun nga dem ci ay gox-goxaat alaaj ba léegi dañuy am problème mu ndox dañuy xëy suba ba ngoon du am ndox bu ñuy am as guddi gi lay doon nga dem ci gox-goxaan yoo xam te ni ñoom dañoo gisul sax faf ndox ci boppam ngeen bëgg taxaw fii ne ay ñun wëy ay 37 pour cent ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo ñoom ñoo euh, ñoom ñoo amul satisfaction ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum seen ba pare facturation bi xam nga ay wéy lu toll nii ba lii lii nañ lay facturer lii ak lii mais nit ñi ndox mu baax sax dañ kaa amul ba ngeen di facturer nit ñi ay kii ay ay ay pourcentage ne boo tollee fii ak fii mètre cube bi boo ko amee ci loolu nañ la war a fayeeku nangam ak nangam ndox mi daa cher leleen war respecté wuñ ko donc bu ñu fontoo sénégalais yi taxaw fii di leen gëmloo ay woy ñun waa seen ode liñ leen di jox ci ndox ak ñoom seen mais 37 pour cent ñuy minimiser même bu dee 37 pour cent kenn du ko minimiser dans un contrat lii remplir li nga xam te ni moom mooy cahier de charge bi parce que lañ la wax moo di ne sénégalais yëpp da leen a war a jox ndox en abondance et ak eau de qualité mais loolu moo nekk ci cahier de charge bi est-ce que ndox en abondance am nañ ko est-ce que ndox ci fi nga xam te ni mooy les zones urbaines ak périurbaines yëpp yow da nga fa war a alimenter est-ce que loolu am nañ ko mais loolu ba pare ngeen bëgg a taxaw fii jekk-jekkal seen kii tubaab bi taxaw moom di wax na ne et pourtant ba mu soxlaa ñenn ñi wala ba mu waree wax ak sénégalais yi waxu ko defu ko dafa dem def ay visit de chantier romb sax liggéeykat yi nga xam te ni ñoom ñoo nekk seen o pour wan la ne weeguñu sax sénégalais yi mais nañu bàyyi seen yi ñuy def toog di dajale ay naan ay woy dañuy jéem a euh, euh, nataal na def nataalu seen entreprise te fekk na ne la wax lépp ñëpp xam nañ ne dara amul. ma mbay seen au Sénégal yi xaaloon nañ ci ñoom lu dul woote ndajem weccooy xalaat. xam nga ci ci terre sur le terrain lañ leen doon xaar. xam nga ñoom ci boppam sax dañoo njëkk. wane seen ak lajjite parce que bi ñu defee gëstu ne 37 pour cent des sénégalais ni ñu waree jot ndox mi jotuñu ko yaakaar naa ne laata ñu doon woote ndaje mooy jéem a saafara 37 pour cent yooyu ñu fexe ba jot ndox mu baax ña xam ne jot nañu ndox sax ak néew. étude ba ba baaxul de. même même même bu ñoom rek xam nañ ne kon am y' a des sénégalais y' a ko minimiser parce que ñi nga xam ne ñoo am ndox sax ñi nga xam ne dañ jàpp ne ndox. mais ne am nañ ndox est-ce que gis nañ yenn saa ndox mi ñi am ndox moo xam ne yenn saa yow doo ko man a naan yow fii rek Sénégal ngay gis ku am sa robinet di fay facture te doo naan ca ndox ma da ngay dem boo bëggee ndox moo naan sa biir da ngay dem jëndi ji ci fii Dakaaru Njaay gii Ouest Foire gii mhm. dem nañ ba léegi dañuy installé ay cabine ci mbedd mi da ngay fay jënd ndox boo naan ba pare di fay facture seen o parce que robinet baa ngi sotti sa kër loo koy dee raxas mhm. loolu da léegi loolu rek ngay doyee seen eau ci ñoom lu ñu jéem a lijjanti loolu. ak facture ndox bu ñu consommé wul. facture boo xam ne yow consommé ko di ko fay. robinet bu tëj weer ñu indi la facture. andi la ngelaw facture ngelaw la parce que ñu andi la loolu la war a lijjanti moo gën ñuy toog di oote ndaje def seen. communication te ba a de a fay loolu fan la am. <laughs> moo ne teewul de laaj nañu ko ni ko li ngay wane ni yëpp teewlu say kat ñu ngi nekk ci di ñaxtu ndax amuñu satisfaction waaye li mu leen tontu mooy seen nekkul ci nekkul ci man-manu yokkal salaire liggéeykat yi 40 pour cent na yëglu directeur bu euh, CNO ak Abdou Aziz Sow. 40 pour cent salaire équivalent bi 3 milliards la c'est-à-dire 3 millions d'augmentation de salaire par mois ñun léegi société bi moom ci ci démarrage bi fii mënu ko. ñoo ngi waxtaan ak en interne avec ñoo xam ne des partenaires sociaux qui acceptent ce dialogue là et qui continuent discuter avec nous moo tax nu mën a signer tous les protocoles qu'on a des na nag maintenant nu jog nu toog di waxtaan ñun ñëpp parce que koo koy objectif pour être au conseil d'administration dafa am benn procédure du ministère ministère bi envoyé noonu récemment yàggul il y a une semaine envoyé ko au syndicat ne leen signé leen protocole bi pour que mu dugg conseil d'administration ci foofu lu ñu suñ ko signé mu dugg conseil d'administration ki doon wax mu ngi tudd màgget Niang mooy DRH bu Sen'Eau senegal googee seen war a jox ndox war nañoo xam ñaata nit ñoo fi dëkk waaye ANSD entamé nañu benn recensement bu lu toll ci ñaar fukki junni nit ak juróom-ñaar ñu fas yéene dugg ci réew mi ngir xam ñaata nit dëkk senegal Abdoul Aziz Sow Mamadou Ndoye recensement mooy wenn opération statistique boo xam ne des koy def fépp ci réew mi biy joxe ay xibaar ci bërëb yi gën a fasantikoo ci réew mi. lu bëri ci recensement lay sukkandiku état bi suy joxe ay fonds de dotation aussi di gunge collectivités locales yi. da koy sukkandiku ci population ba fay nekk di fa dund. état bi su demee bëgg def ay école bëgg a xam fii ak fukki at. nañ soxla ñaata université ñaata lycée ñaata hôpitaux lépp loo xam ne dañ koy def mu jëm ci askan wi te ñu bëgg ko teg ci xam ci données recensement lañ koy wekk. li ñeel li mu doomu aadama yi te bokk ci juróomeelu recensement général bu askan wi ak seeni dëkkuwaay des na ko amal ci ñaareelu xaaju atum 2023. di nga recruter lu fanweeru jinni nit ñu dem ci dëkk yi ci gox-goxaan yëpp war a mën a waxtaan ak askan wi daanaka 700 pick-up nga mobiliser ko ñu war a dem ci Sénégal yëpp. di nga luyee sax xëy na ay gaal ndaxte am na foo xam ne xëy na pour egg fa ci ci ndox ngay jaar. duñ def lenn ci kayit lépp ci ay tablet ak ay ordinateur nga xam ne bés bu ñu paree rek ñu mën a am résultat yi du yàgg. waaye laata loolu atum 2022 moom ñu ngi ko jagleeloon amal cartographie censitaire muy pàcc bu ñu jagleel ni ñu rëddee réew mi yëpp def ko ay district de recensement doon pàcc yi dëppook diwaan bi recenseur bi war a amalee liggéeyam. ñetti fan ci weeru bi ñu weesu la ñu entamé woon travaux euh, agropole bi nga xam dafa boole agropole intercommunal Malicounda Ngéyeen ak Sandiara. lañ fa nar def nag ci wàllu fil yarum meew euh, yarum ganaar ak yarum jën nekk itam fexe ba yàpp wi saawan baawan élevage laadum itam sakkan fa loolee di tax ñu dem jëli stratégie ak doxaliinu Israël ngir jëm ko développé ci agropole bu am solo boobee nekk ca diggante ñetti communes yooyu maire commune Malicounda Maguette seen ci ay leeral. Israël lañ fa demoon ndax dañoo war a def benn agropole diggante commune Malicounda Ndiéniène ak Sandiara président Macky Sall financé benn agricole bu toll ci 54 milliards de francs CFA 54 milliards euh, ñu euh, euh, gouvernement bi war ci travailler partenariat ak israélien yi donc Israël ut bu xam ko ci mbay xam ko ci guddaal xam ko ci en tout cas agro business ñu demoon nag xool yi agropole yi nekk Israël nan lañ mel comme agropol yi ni mel lañ bëgg a defar fii ko defee ñun ñoo xam ne ñoo ko war a ay maire ñu mën a outillé wu am jumtukaay yi ñuy permettre ñu comprendre nan fexe ba dëppoo am diggante nappkatu cosaan yi ak service yi nga xam ñoo leen di saytu muy administration bi seen nekk nii tam mën a am kaaraange ci géej gi sabab na ñi kay saytu amal benn ndaje fële ci diwaanu Mbuur nañ ci sukkandiku kàddu yi leeral Abdoul Aziz euh, lii mooy chef régional bu pêche foofee ci diwaanu Thiès ñu teew ko. directive bi daal dafay ëmb lépp lu nga xam ne dina jëm ci durabilité durabilité mooy nu ñuy def ba nappin bi sax. nu ñuy def ba koom-koom bi yokk nu ñuy def ba ndóol gi wàññeeku defe naa loolu yëpp mooy ànd benn la package la alors bu ndóol gi yokkoo euh, durabilité du am donc nit ki pour mu mën a changer comportement il faut que ma koomam yokku il faut nga xool moom liggéeyam naka lay mën a def ba mën ci am lu bëri mën ci am lu mu tedd lu mu suturloo ba mën a sakkanal ba mën a bàyyi yenn yenn yenn jëfin yi nga xam ne rek alam bi loolu moom la moom lañu moom la FAO xalaat moom la réew xalaat ñu signé ko ñu engagé wu ci ak ñoom euh, communauté yi aussi euh, ils sont responsables elles sont te defe naa ne danañ ànd ak ñun ci dynamique boobu façon ñoom ñooy bénéficiaires lépp ñoom la jëm ñoo koy jariñoo ñooy napp ñooy dund ñooy jaay donc boo leen jiitalee ci yoon loolu ànd ci ak ñoom j'espère que dina dox incha allah loolu daal mooy solo yi mooy solo yi waxtaan bi am na jéego yu bëri ñu ciy def tey nag dañu ñëw ne nañu wasaare li ñu jot bind ci olof ñu fàttali leen également taxawaay bi ñu war a am pour que li leen di dundal ñu dundal ko. au lieu ñu bind repos biologique. waaye na noppal nañu géej gi. ngir euh, <laughs> lébu bi ak jolof ak euh, kajoor kajoor bi mel ni man bi Biray mën koo comprendre. mais loolu pexe la ci wàllu communication important parce que par exemple yow kiy dem bu mel ni Mambay euh, jël gaalam dem di nappi. mais wanoo ko ne ko amoo sañ-sañu napp jën bii mën nga bind ne ni yaax mboo ko bindee ci wolof nga bindee yaax que ko mënul liir mais du ko jàppee yaax mais boo ko wanee photo wu jën bi moom miy mool yàgg xam géej dana ne waaw bii amuma sañ-sañ bu tollee nii ma napp ko mais gis nga bay communiquer wala bay euh, waxtaan ak benn ci frange société bi mais wax leen lañu dégg wan leen la ñuy mën a gis waaye dugg ci ay atelier di làkki tubaab woo ay expert tubaab ñu ñëw taxaw di leen làkki yi tubaab doo ci comprendre absolument rien du tout mais la ngay bëgg ci résultat mënoo kam parce que waxoo ak ki nga war a waxal ci anam bi mu dégg ak la mu dégg mool bi néew ma ñu de au contraire am na ci ñu dul jeex ñoo xamee ni jàng nañu ci wàllu tubaab lu xam ci lu bari am na ci ñoo xamee ni soxla ñu koy jàng ci tubaab yi waaye xam nañ ko parce que ci la ñu juddoo ci la ñu yaroo ci la ñu màggee mais pour gën fexe ba yaa ngi wax repos biologique mais boo ko nee repos biologique am na ñoo xam ne dañ laan d'accord repos biologique lan mooy repos biologique mais nga indil ko ko ci ay firnde nga ne ko amoo droit wu napp ay petit pélagique wala ay démersal ak yeneen ak yeneen mais won ko ko ci nataal mu gën ko mën a xam ngis nga li maître Abdoulaye Wade doon euh, taxool benn période ne ni am na foo xam ne ba ci bus yi daan la numéro am na ñoo xam ne xamuñu numéro bi c'est vrai ça fait rire mais am na ñoo xam ne boo leen ne dañu naan bii ba ligne la ndax mënuñu ko liir ndax euh, ligne Dakar fii wala mu ne lan lan leen tegal ay nataal ñu mën a xam ne bii de mbott bi fii ak fii la jëm wala kanaara gi fii ak fii la jëm ça Euh, euh, ridicule ou risible mais am na ñoo xam ne loolu la ñu dégg il faut savoir communiquer peut-être avec les gens selon li ñuy mën a dégg. séminaire danañ war a ba. séminaire dem sur le terrain. bàyyi di tëju. def lu concret. waaw def lu concret dem wax ni ah mais tamit. ba pare waa seen o nañ dem laaj waa ANSD defal leen xayma ci nit ñi. parce que seen xayma bi baaxul. lu liggéeyuñ fi tous. jaajëf Mamadou Fofana jaajëf El Hadj Birahim jaajëf maam bay jëlal say lenge a demee incha allah. jaajëf El Hadj Mouhamadou Mansour Diop du peuple ci kanam kon tës. waaw incha allah tout à l'heure 29.7 en tout cas li nga sol tey rafet na merci beaucoup. jaajëf waay ku <laughs> ne wu sàccee.